li ko fa yóbbu du visite officielle loolu dafa jar a préciser. oui sommet moo am ñu daje fa ñu programme seen agenda benn déjeuner ñoom ñaar ba léegi président Diomaye demul. France c'est voulu ah ni ñu ko ah, defee noonu ah parce que xam nga nit boo nekkee ganam gan du yeewi béy. nit du la dalal dëkkam jéem a nu mu arrangé ci agenda am benn rencontre loolu boo ko décliné après dafay ñaaw trop. te hmm. diplomatie. du du àndut ak violence àndut ak wu diplomatie li mu àndal mooy masla moo tax ngay gis ñaari réew di rayante ci guerre mais diplomatiquement seeni ministre affaires étrangères wala seeni représentant di daje di accoladante mais loo ci mënti dégg président Macron moo gënoon sawar ñëpp rencontre bi. ah oui ah lu koy justifier. déjà poignée de mais bi wane na ko. xam nga uude ni mu la gisee rek la lay ëwee wax boobu bu uude de olof Njaay tubaab la bëggoon wax tubaab ni mu la gisee rek la lay ëwee <laughs> ah oui ah oui remarqué wu récemment oui yëpp bi ñu gisanteeg le président wala le def communiqué en wolof musul ah. que xam na ne ñi am en face c'est des souverainistes donc niñ leen gisee ni ñii c'est des souverainistes c'est des leader politique décomplexé noonu leen leen di awee mooy noonu lañ leen di téye Macron recevoir u fi non président yor xajam parce que ñooñu ni mu leen gisee woon noonu la leen awele mais xalaatu ko avec le président Diomaye mhm. parce que dégg na jëwam xam nga léegi léeg nga dégg jëwu nit ba bu ngeen dajee yéen ñaar ku nekk da ngay sewe da da ngay dégg ni niw kat boo ko mayee tuuti mu manqué la dara. manqué la dara benn poignée de main bu sévère nga xëy jox mu nuyu la nga dem mu dem parce que da dégg jëw donc Macron dégg na jëwu autorité yu bees yi il va se comporter comme tel léegi nag. Hmm. moindre acte bu président Diomaye di poser biir France dafay am solo. Ah, ah. déjà wàccam dal ci ambassade bi message bu fort la. wan na ko na ko ñun suñu dernier public yi man daf maa amal solo trop wàccul dal hôtel Jean de cinq wala Pullman wala feneen te bu ko defoon service de renseignement yi dañ koy jox président Macron mu tiire ci ay conclusion maanaam hmm. kii alalu réewam ñoru ko gis tubaab bi yëpp daxay baxal nan nga ñëwee style vestimentaire fan nga dal sa délégation yan hôtel lañ nekk yooyu yëpp dafay am sa à partir de ce moment dinañ ci tirer conclusion ñun ki ñu am en face il est décomplexé ou pas c'est un noom qui nu mu tudd maanaam nit kuy dëggal boppam la wala nekkul kuy. dëggal ci li ñu woote doon nañ ko. voilà li ñu mooy li olof mooy li xale yi naan li nga li nga diwoo. xeeñoo xeeñoo ko. donc loolu dafa am solo. Euh. donc ñoom danañ ci tirer ay conclusion hmm. mais tey boo wàccoon France dem dal George V wala dal beneen hôtel xam nañ ni kii alalu askanam bu ndóol bi ko fal ñoru ko à partir de ce moment lii rupture la ndax ki fi jóge daanu ko def yeneen président yi defuñ ko boo wëree tey hôtel yi gën a cher biir France fekk ñu euh, réquisitionné ko pour seen séjour ñenn ñi dañuy occuper des fois hôtel yëpp. foofu la tubaab di xam sa personnage parce que diplomatie léppay wax. style vestimentaire day wax ni nga ni nga ko nuyoo dafay wax fi nga dal dafay wax discours bi ngay tenir dafay wax. Eh, président Diomaye marqué na pas bu mag ci déjà wàccam ak fi mu dal rek. oui hmm. wax nga ba ci style vestimentaire am day wax mais poignée bi pour yow bi nga ko xoolee mu serré la main à Emmanuel Macron. Hmm. lan nga ci jàngatee parce que nee nga soppeeku am na ci. je dirais que Macron cherche à mettre à l'aise le président Diomaye hmm. maanaam ma fexe ba yow nga nekk à l'aise maanaam il essaie de rassurer le président Diomaye poignée de main bi loolu laa ci gis kenn ah. kuy jéem a rassurer ki mu amal en face parce que Macron nit ku suffisant la boo xamee bu dee da nga suivre hmm. nit ku suffisant la nit la koo xam ne mënul nëbb ay ressentéem maanaam du nit ku faux comme Sarkozy Sarkozy mën na mer du la ko won Macron su mere da day feeñ ci kàddu d'ailleurs loolu tax na mu def gaaf yu bari en diplomatie mm-hmm. mais boo xoolee il n'a pas le choix xam nga ñun yàlla dañ dimbali suñu njiit yu bees yi tombe ci benn période bu amaam solo mooy da nga tombeek benn France faible en termes de diplomatie ah. particulièrement en Afrique la France elle faible ndax yaa a une guerre à même pas quelques biir continent bi mm. Europe faut rappeler que ni depuis deuxième guerre mondiale ba tey amul guerre actuellement Europe dafa am guerre France musul faible nii en Afrique France mosul am concurrent yu activé nii en Afrique ah. France musul perte contrôle autant de pays africains défi yooyu yëpp. Hmm. boo ko tegalee France France dafay nekk en position de faiblesse à partir de ce moment suñu autorité yu bees dañ nekk en position de force mooy benn en terme de diplomatie dakaar mën na nekk locomotive bi tiire tous ces pays du Sahel ñu jëm ci souverainisme. oui Dakar dafa nekk en position de force ci suñuy ressources naturelles ñun alternative lañ oo nu mu au gaz russe. Ouais. par rapport ak distance bi dox suñu diggante ak pays européens yi. aspect yooyu yëpp boo ko boolee ñun ñoo nekk en position de force rawatina nag Macron nekk en position de faiblesse politique biir réew amul majorité. waaye donc kooku pour nga gérer ko jafewut bokkut ak benn Macron bu toogoon puissant contrôler dëkk yi am majorité réew am benn envergure boo xam dafay permettre mu def nag maanaam Macron tey capacité de manœuvre mandat am boole ci capacité mi bëriwul hmm. te dafa pett réew yu bëri Sénégal ak Côte d'Ivoire nekk dernier rempartu France ci sous-région bi donc au plus grand jamais duñ pett la Sénégal donc ils feront beaucoup hmm. pour bañ a Sénégal foofu nag la gars yi di utiliser seen xarañteef profité ci mais la diplomatie sa adversaire bu nekk en position de faiblesse tu en profites nuñ ci profité pour yow mooy tey bépp contrat boo xam ne jàpp nga ni niñ ko signé jaarut yoon. Hmm. imposer leen transfert de technologie. xam-xam bi ñëw fi fii ak ñetti at dootoo ko jéggaane accord yu bëri. Hmm. mun nga ko rompre négocier waat ko dañuy nangu. parce que accord secret yi ñuy wax yi ñuy junj noonu wala. accord secret man particulièrement man d' accord ma pour ñu rompre les accords de défense. man dama d' accord sax ñu renforcer ko. dinaa expliqué maanaam pas base yi dem. non pas base yi dem au contraire nañ ko gën a maanaam base yi nañ fa def lu am solo. loo xam ni da maanaam dafa am aspect dissuasif ci képp ku bëgg dal ci Sénégal parce que Sénégal dafa commencé nekk puissance pétrolière puissance gazière. ñaar yooyu moom ak ennemi ñoo ànd ca àddina bi. Qatar bi mu amee gaz bu bëri am pétrole bu bëri dafa dem indi base américaine bi gën a mag ci Moyen-Orient bi indi ko biir réew loolu rek a tax ses voisins mu ko envahir. Euh, Koweït. bi mu bi mu xëy bis gis réserve yu bëri Irak dafa dugg biir Koweït pour récupérer ko nuñ mujjee indi ay base américaine ñun à quelques kilomètres fii Mali mooy arrière base yi fii biir Afrique donc est-ce que ñun su fekkee ni ñun alternative lañ ci gaz russe te gaz russe yu nekkoon benn moyen de pression des Russes envers les Européens est-ce que ñun duñ nekk menace envers les Russes hmm. da ngay soxla lu la protéger au niveau international moo tax ma gëm ne accords yi mën nga ko xoolaat. mais renforcer ko nga xam ne Sénégal dafay gën a am sécurité ba benn réew du ñeme dal sa kaw. mooy base yi des fi mooy base yi des fi ba pare am effectif boo xam wala contingent boo xam ne ma maanaam am na benn taxawaay bu dissuasif sur le plan international. Hmm. donc man d'accorduma ñu jëlee fi base militaire yi. nànk-nànk. xëy na ba Sénégal. di am benn dayo bi en terme militaire nga door a jëlee fi base yi mais nii nii nii man na dama d'accord ñu def fi ba ci kanam. et pourtant suñ daan def suñu. Mhm. défilé mhm. yi liy génn ci ay jumtukaay bien que du lépp ay génn. Mhm. mais li ñuy wax mooy ni attention euh, yegg nañ ci niveau ak ci dayo ci wàllu équipement ak même formation suñuy élite. waaw xam nga la Sénégal boo xamante ne ñoo mën a ragal yenn menaces. waaw Sénégal est bien armé. côté sous-région. mais Sénégal bokkul sax top 20 grande puissance militaire en Afrique. menace yi la yi maam yi lay gerte su région bi moo ci gën a ndaw xam nga man su may wax accord de défense yi c'est par rapport aux Russes. moo tax ma gëm ni te accord de défense dafa am solo gis nga Zelensky mi mi ngi wër àddina bi yëpp accord de défense lay wër donc d'accord ma ñu rompre ko période bi te yow yàlla dafa def sa ressource naturelle yëpp ñu ngi ci géej gi. oui donc man dama gëm déjà ne pour une première. yow pour te protéger war nga taxawul benn genre bu G5 hmm. mais version maritime boo xam ne yow lay nekk Mauritanie Guinée Sierra Leone Nigéria parce que six yii ma la wax. Hmm. li gën a stratégique ci ñoom mi ngi seen frontière maritime mooy installation portuaire yi ñun port de Dakar mooy poumon économique gu dëkk bi. suñu pétrole bi ci géej gi la nekk suñu gaz bi ci géej gi la nekk donc yow. sa priorité du sa frontière ak Mali en terme de sécurité yow sa priorité géej gi la